bi. tur bi naka la. Fama Samb. Fama euh, Fama euh, ñu ngi jégalu xam naa da nga liggéey ba wàcc ni euh, ay kàddu rek ak lan nga jàngat ci li nga xam ne rek mooy dogal bi président jël ci loolu. waa président dogal bi mu jël moom noonu la ndax as lii tamit day tax ñu aar ñu daal ci dem beeg dikk bi tamit noonu la parce que tamit waroo xëy 6 heures nga kii nga yaa ngi war a xëy 5 heures. léegi ñu ni 6 heures pour ñëpp génn nga dem 20 heures ñu arrêté ku nekk dem ñibbi loolu moo gën daal ndax tamit loolu moo ñuy aar aar tamit suñu njaboot yi waaw loolu daal laa amoon ci lu ma gis. Euh, ci loolu li nga xam ni tamit euh, maanaam moo jëm ci wàllu feebar bi nga xam ni moo tax dogal yooyu sax jub yow en tànk jigéen te feebar boobu ku ne xam ne ni nee nañ set mooy noonam waaye salte mooy bokkam. waaw yéen nga tànk jigéen nga nekk ci kër yi walla fa ngay liggéeyee euh, ci wàllu cet googu ban xalaat nga ci am. waaw muy ñun jigéen ñi nekk si kër yi ak si bërëbu liggéeyukaay ñu set daal di raxasu ak saabu xale yi tamit nga leen di raxas saabu protégé wu daal ndax fagaru moo gën faju ah loolu laay gis. tey tamit boo amee message boo xam ne da nga koy jox askan wi ci ñu gën a fàggasniku ci wàll feebar bi ni muy wàllaatee message boobu lan lay doon fàggasniku quoi moytu. ñu moytu waa ñu moytu rek di mooy daal raxas loxo yi jël mask yi. protéger wu daal comme ni ma ko waxee fagaru moo gën faju ah moo gën daal. ban message ngay sànni kilifa yi euh, maanaam njiitu réew mi ak ñi ak ñi yor wàllu wérgu yaram gi. waa ñi yor wàllu gi wérgu yaram yi tamit ñoo ngi bay seen waar yala ngi ciy def yal na yàlla xeeb doole daal ñaan rek ñi tawat yal na leen yàlla saafara ñi ñu feebaragul yàlla musal leen musal ñu ci ñu ngi lay di la net waaw loolu xalaat bi ñu si am mooy xanaa def li état wax ndax tey jii bu ñu defee li état wax maanaam jàngoro ji bu saafaraa ñun ñëpp la saafaraal mais bu lawee tamit ku si ne si di si di nga si yëg ngaañ moo tax dañoo war di xaajandoo di dóorandoo di état wax daal geen ànd nañ si bu baax a baax a baax. Euh, da liggéey woon ni waaw waaw instant dama liggéey woon man dama man dama naan faral di guddee wàcc sax man presque daanaa liggéey ba ay vingt heures vingt daanaa dem ba ay vingt deux heures presque waaw mais instant yi nii dama obligé teel a wàcc teel a ñibbi sama kër comme bañ a wàcc yoon comme ni ko état waxee quoi waaw. tey bu fekkee lu jëm ci wàllu feebar bi la ak ba maanaam moytu geeg fàggandiku bi ban xalaat nga ci am pour wax ko yegg ko askan. waaw li may yeggee askan wi rek mooy ñu gën a ba pare aussi tamit delloowaat xel yi si yàlla xam nga jaamu yàlla te xam ne yàlla suñu borom moo ñu mere instant yi nii yàlla moo ñu mere di heure bu ko yàlla tegee tey jii rek mu wàcc léegi doomu adama yi yàlla suñu borom bu ko neexoon tey balaa vingt heures feebar bi wàcc ñëpp waaw mais instant yi nañ tuubaat dellu si yàlla wàññi bokkaale bi bàyyi ko sax complètement laay wax bàyyi caaxaan bi bàyyi mooy yàlla gi xam nga instant loolu moo waral balaa yi ngay gis ak musiba yi ngay gis yëpp daal bu ñu tuubee delluwaat si yàlla yàlla nañ jégal ndax yàlla moo ne tooñ leen ma ngeen jégalu mu ma jégal leen instant ñu tuubee jégalu daal suñu borom yàlla dina wàccee yërmande si dëkk bi bu neexee euh, message bi nga xam ne nii da koy jagleel euh, kilifa yi jiite réew mi jat rawatina président de la république ak ñu mu àndal ñu denk leen euh, wér-gu-yaram gi caytu askan wi di caytu wér-gu-yaram askan wi lan nga leen wax. wax mooy président muy président muy sëriñ bi muy ku mu mënti doon daal affaire bi daal. nañ déggoo ànd doon benn te xam benn kàddu mooy wéy mais burul benn kàddu kii bu waxee fii lii kii wax fii lii kii wax fii lii ak daraja boo mënti am tamit te déggoo wuñu su boobaa du sotti waaw affaire yi moom benn kàddu moom lañ war a doxee pour mën a am lu ñu bëgg si feebar bi pour mën a gañe feebar bi daal mais bu ñuy waxee jëm nii ñuy wax jëm nii ñuy wax jëm nii du question ni sëriñ bi moo fi jëlee feebar bi wala président moo fi jëlee feebar bi non non il ñu mobiliser booloo. and don ben mona xex xeex gañ bi mu jógee fi ñu nekkat si jamm quoi. Euh, nga fàttali ñu tudd. man Diouf la tudd diko ko waaw. kaddu yi amna baku. solo macha allah merci beaucoup jeuf merci grand. man lu président bi jël man wa dëgg fa neex yalla man ànd naa si ndaxte so xolé bo xolé président bi lu mu def pour jangoro bi dem joge si askan bi fi sudul lolu day gëna yoko te boo xoolee tamit au benn côté président dañoo war a xoolaat biis yi biis yi ba léegi tàncaloo bi am na parce que soo xoolee biis yi même bu fekkee euh, seize yi nu mu mel noonu dafa war a am espace bu ëpp ko ñu ku feebar ken xamul yàlla rek moo xam kan moo feebar dañuy musul si feebar bi quoi mais na nañu yàlla musul si feebar bi te affaire bi nit ñi tamit jëlee ko en sérieux quoi surtout que lu président bi waa di euh, vingt heures à six heures du matin si lu baax la quoi parce que day day ta affaire bi wàññeekoo te su feebar bi lawee rek du baax parce que am na ñoo xam ne ay néew doole lañu quoi amuñu. voilà ba tey rek mbokk yi ñu ngi ci li nga xam ne rek mooy micro trottoir bi ñu jagleel état d'urgence bi kilifa réew mi euh, di président Macky Sall jël ñu yaakaarloo keneen ko xam ne ñu bàyyi ko mu présente nuyu wax ñu turam. asalaamaaleykum maa ngi tudd Boubacar Diallo dëkk Grand Yoff Eh, maa ngi bëgg wax si mbir mi tuuti quoi mais man li ma si gis exemple boulangerie yi ñu tee li ñu tere ñu ñu jaay